asalaamaaleykum mbokki journaliste yi ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen remercier ci teewaay bi ngeen am fii parce que bon organiser événement ak bu mu di doon am na importance mais aussi relayer les informations moo ëpp donc di leen remercier en deuxième phase maa ngi de la population de Ouest Foire bi nga xam ne tey ñoom ñoo ma parrainé tournoi bu mag bi nga xam ne réunir na plus de 26 équipes li waral loolu nag sama historique Ouest Foire raw bi ci topp mooy man acteur boo xam ne nii dama yàgg œuvre ci aspect pédagogique ndax jàng naa fi plus de 200 élèves yoo xam ne nii yàlla dimbale wala plus ci mën nañ jaar ba yàlla may leen baccalauréat œuvre nañ tamit ci wàllum jàngale bi lu bari lépp luy activité muy culturelle ak religieuse mu mënti doon suñu loxo mu ngi si donc ñoom jàpp nañ ne changement aussi dafa war am seen seen gox ba tax nañu jàppale seen doom la preuve terrain bii yàlla dogoon def nañ fi lu ne tey bu ñu demee ba ñu tuddee final dañuy du ñu def lu sant yàlla di remercier tamit beneen beneen ci beneen mbir beneen fànn ndax sama yaay génn àdduna yaa même pas un mois ñu annulé seen lépp reporté seen lépp ba bés bi tey donc du ñu def du rafetlu ko dinañ wax ne final bi incha allah rabi dinañ def deuxième édition parce que guddi na te it ci ci ci ci coow ay coow moo fi am te gis ngeen ni mu demee. en tant que parrain vraiment euh, message ngay jàllale parce que bu ñu waxee sport benn benn moyen la pour dajale pour boole pour jouer non violence mais jouer fraternité donc en tant que yow parrain bi tey message ba ngay jàllale benn message laay jàllale ndaw moom dënam day tàng waaye nañu utiliser suñuy xel ndax xel moom boo ko topp moom doo doo jug lu dul ci musiba lii dafa neex ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te it jàpp naa ne fii ma dëkk ay nit yu baax rek fi dëkk xol yu rafet nañ am mais football moo demee nii neer yi te deuxième édition incha dina am bu ko bu ñu ci jugee rek ñu continuer préparer échéance yi ñu jëm muy euh, l' élection locale de 2022 ambition yi leer na Mamadou Gueye candidat à la mairie de Yoff te Mamadou Gueye du bokk ci liste bu Abdoulaye Diouf Sarr jiite Abdoulaye Diouf Sarr dina jugee ci mairie Yoff ci nii wala naa loolu mooy discours <laughs> waaw coalition actuellement, de former une, coalition. Je, je, peux une grande coalition. Manak Moussa Fatal. Moussa Fatal est un acteur de développement, un acteur politique au niveau de Yoff, Bok Beno Bok Yakar. Mais man Mamadou Gueye néwutuma ci yiru parti. Li ma nek moy l'intérêt de la commune de Yoff. donc collaboration yi ñuy def yëpp dañuy ànd nga xam ne gëm nañ ne que intérêt Yoff moom la ñuy défendre gëm nañ que intérêt Ouest Foire bi nga xam ne génn à la commune Yoff ci jàmm bu bëggee jàmm si loolu la ñuy dox matin midi soir